de, de l'urne pour permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir euh, effectuer euh, leur vote. Mhm. Donc euh, oui, il y en a qui commencent à se rapprocher pour aller voter. On surveille tout cela. Ibrahim Diédhiou euh, comme le ko gisee gendarmerie, yi ñëw nañ def benn cordon ci urne bi pour may ñi nga xam bëgg voter ñu voter C'est na loolu moo rôle bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci ñoom fii ci assemblée en tout cas lañ

le règlement intérieur bi mi ngi mi ngi mi ngi ñëpp mën nañ ko xool ci internet wala wala ci seen téléphone loolu moo may gendarmerie lu mel nii maanaam su amee ay trouble ñu rappeler député yi ñetti yoon ñi nga xamante ne ñoo à l'origine de ça ñetti yoon à l'ordre loi bi may na ñu évacuer leen sax leen assemblée bi pour 24 heures Madame, loolu le règlement intérieur assemblée nationale wax en termes de discipline ce sont les articles euh, voilà, en vigueur qui permettent justement cela euh, aux forces de sécurité de pouvoir, euh, s'il le faut, en cas de trouble, évacuer les députés en question ou à l'origine et permettre le déroulement du vote. Moi, il ça. Est-ce que, si nous voulons voter, est-ce que nous vote parce qu'à la coulée, il faut que nous votions. Madame, et il faut ñu élire président assemblée nationale comme ça ñu allons si ni euh poste vice président yi ak secrétaire élu yi ak questeurs yi ce qui comme que en bi 83 82 la ñu bëree nous nañu sax ni vice président yi day am ñeenti opposition ñeenti pouvoir secrétaire élu am opposition ñetti pouvoir su que nangu nañu ñom euh, voter lii moo que lépp loi bi da ko teunk bon règlement intérieur assemblée nationale député bu Wadnokoyor, war na euh, euh, dans de pareilles circonstances Alors, le ñu delloowaat euh, sécurité bi sécurité, sécuriser vote bi ku vote pour que ni nga ko pour ku bëgg a voté ñëw voté ku bëggul voté voilà parce que abstention moi, pour un compte. vous votez peut-être que loi bi day jàpp ni tu abstenu mais li lima li doon wax rek euh, politique bi moo moo moo tëddee nii euh, loi dafa nekk loo xamante dafa dafa nekk lu lu tënku ay ay mbir ay charte analyser wala am perception mais ben instant euh, xam nga gendarme yi ñoom lépp loo xamante et c'est pour cela que, bon, peut-être que c'est la première fois que Sloumeni, mais l'Assemblée nationale, soit amee blocage rek dina am règlement boo xamante ne mooy débloqué yëpp te dafa mel ni si loolu lañ nekk nii. il y ba yenn député yi ñu voté l'instant kenn wax. Euh, bon, Moi, député yi rek euh, député Touba Koutabila, nous avons ngi ko doon gis ci image yi ci njalbeen muy Janko. Euh, nek euh, maire Kouta euh, moom mo don voter sànq kon euh, force de l'ordre di nga xam ñom ñoom ñoo dugg biir hémicycle bi ñom ñoo sécuriser de sorte que fi tollu ni vote bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi depuis 13 heures dañuy fàttali ne blocage bu metti moo fi am fi assemblée nationale ba tax boobaak légui kenn mënul jall ci watum njiitu président assemblée nationale waaye fi mu toll nii ni ngeen ko gisee ci image yooyu gendarme yi ñoom ñoo dugg si daal di créer benn cordon sécuriser ko ba ñi nga xam ne bëgg nañoo vote ñoom ñu voté am na nag ñu ñuy gis ci coulisses yi am na ñu ñuy gis ci ginnaaw waaye pour le moment ñu jàpp ne présidente bi di Aïda Sow Diawara moom mi ngi yore liste député yi mi ngi wote mi ngi woote député ñu ñëw ndànk-ndànk di ñëw voté ñi bëgg voter voté ñu ngi leen di gis ñu ngi leen di escorté daanaka xaalaleel yoon bi ñu dem voter gis nañ sànq Abdoulaye Daouda Diallo voter na euh, ñeneen ak ñeneen euh, voter nañ vote ba nekk noonu ba tey Ibrahima Diédhiou di wéy. moo tax euh, li ma doon wax sànq lépp ay stratégie la il faut que parti xam nga ku nekk da ngay ut stratégie pour daan sa morom su fekkee loi bi mayee na ko da ngay bàyyi xel su fekkee tënk na si règlement intérieur assemblée parce que du loi bo xamné ne da koy il faut que ñu am capacité de pouvoir euh, également euh, contourner voilà contourner euh, la loi quand ils le peuvent ou s'adapter parce que un yi et li may gis moy comme ni ko waxé rek avant minuit il faut que li nga xamante moy vote bi am blocage bi mënul loon mënul ni continuer mais mais mais suba parce que ben instant force de sécurité il faut ñu ñëw def sen sen liguey parce que comme comme on dit force reste à la loi té élection bo gis rek force de sécurité yi dañ ci am rôle buñ ci jouer motax euh, li mënon na peut-être su fekkoon déggoo